asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sa Wassare Lamb Wassare TV ah, kon ni niñ koy defee rek à chaque fois nee nañ leen ah, wax dëgg yàlla instant bi lamb dafa sàjj te nee naa leen te lamb ci jéegul tey nag ah, niñ ko doon defee rek kon niñ defee ñi nga xamante ni ñoom ñooy mën nañoo wax ni acteuru làmb yëpp mais tey nag ki ñu seet si dafa nekk koo xamante ni ku spécial mu nekk koo xamante ni naam dafa doon tete mbër wax dëgg yàlla. ay mbër sax la ñuy wax wax dëgg yàlla ñi boo ne Père Omez rek sa xel dem si tafaatin boo ne Père Omez sa xel dem ci ñi nga xam ne mbër yi mu yoroon tey nag ñu fekk si ko fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy combinaison yi am Tapha Tine Boy Niang taxaw na Pape Thialis Faye moom moo tëgg loolu am na yeneen combat yoo xam ne taxaw na arrivé Gaston loolu yëpp dañ ci waxtaan ak moom ah dañuy bàyyi nag mu waxtaan yéen ñi nga xam te ne yéen yéen ko taamu nee naa leen lépp loon bëgg dox mais di ko bégee bu baax a baax suma cameraman nga xam te ne moom mooy Adama kenn du mooma ah, di bégee waat ñëpp ah. ah Père Omez maa ngi lay nuyu euh, donc euh, Fatima maa ngi lay fay euh, di la gërëm di rafetlu sa sa présence tey ci nga ñëw ñu waxtaan ci làmb uh-huh. communication bu baax moo law nii. xaaral ah, parce que dafa attaqué Balla Gaye dafa njëkk attaqué Lac de am ko attaqué Balla Gaye attaqué Balla Gaye. Eh? maintenant am na Tapha Tine. parce que ses ses adversaires dañu limité. Ah. du bëre ak Ama du bëre ak Ama Sène. Bombardier il est à un un un à un an de la retraite Bombardier mu Gris Bordeaux moo un journal que Lac de a fauté. parce que c'est ba tey la communication dafa am importance c'est pas le lutteur qui doit communiquer il faut mu am un encadrement bu yore son management du sport marque di kon moom dafa tawatin di ko waxal di ko jóol di jërente di dem ci site di wax dem ci télé yi di wax ainsi de suite site yi sax pare seere temps yi da mais ñu suñu temps amul woon je peux dire mais c'était les télé et j'étais là les gens croient que le président je suis alors que je n'étais rien du tout c'est pour mais boo ñëwee la de Euh, comment noo je Tapha Tine Lac de jaadu. woon na parce que dañu bëri woon en deux mille euh, deux mille six deux mille six deux mille sept. mooy seen tournoi tournoi bi donc la revanche de Lac de donc Lac de moo ne la communication foofu la yàqu Tapha Tine war échappé parce que Tapha Tine proposé nañ ko Ama Baldé moo combat bi yàqu. Ama Baldé jël Modou Lô. Tapha Tine kan moo ko desoon. kese ak Modou Lô. voilà donc je te dis donc bu mu amee loolu rek automatiquement il devait aller jël. Ah. ak lu mu mën demee na jël na jël comme ça booy ñaaw mooy toog xaar parce que moo ko récalé mu xaar leneen booy ñaaw uti feneen pour déwén mu ñëwaat. mais malheureusement la communication de la guerre a a a passé à côté. mais Euh, Tapha Tine lan moo koy parce que année promotion xam nga loolu mooy fumée revanche cek ah, daan na cek tedd na cek daan na cek ah, waaw dafa duggaat rek Pikine waaw mais euh, Boy Niang nañ fa ah? Tapha Tine hmm? xam nga euh, actuellement Covid bi amul benn athlète bu ne il est à cent pour cent ñoom ñëpp nag amu si kenn ku ci nekk à 100 pour cent parce que wax naa ko sànq la planification d'un entraînement dépend sur beaucoup de de choses des concepts des principes de la mais tout ça il faut que ñu revenir encore sur le travail spécifique ou bien général donc doon nañu Tapha Tine 2018 la bëre donc 2021 ça fera trois ans Boy Niang daaw la bëri donc déwén ça fera parce que ren bëri ren la bëri kon ren moom moo waaw moo la dëgër donc saison bi pratiquement mu ngi daaw bi saison bi jeex saison bi jeex na bëriwuñu bay di ñëw ba lu mu bëri il faut compter au moins d'aller vers avril mai donc avant saison donc waaw ça prend encore du temps uh-huh. donc ñoo ñëpp ku si nekk war nga ma jëlaat maintenant def si l'autocritique en soi uh-huh. xoolaat pourquoi ma daan ma daan euh, Yékini Junior yan qualité laa ko daaneel est-ce que valeur bu ñu xaar ci moom ak capa qualité bu mu am jaroon na tey may ma relancer waat est-ce que ma relancer ma carrière donc est-ce que depuis là est est-ce que est-ce que Boy Niang j'ai tenté de remonter la dégg ma calé donc je prends un autre plus solide plus dur plus costaud parce que Tapha Tine quelque quoi koy éviter parce que il a des qualités non il a des parce que il a des qualités mais quand on dit des qualités il faut savoir des forces des faiblesses pour voir l'opportunité bi nga mën am pour mën a am fooy jaar rek ainsi de suite donc loolu ku si nekk war nga mën a xool à partir de son encadrement def un plan de travail def un travail physique bien donné travail intellectuel moral et puis beneen aspect bi c'est c'est c'est minime mooy l'aspect mystique c'est minime bon ils le font voilà. Euh, kan si. waaw mais moo la expliqué nii. Mm. c'est-à-dire que euh, Fatima je crois que euh, l'aspect stratégie. Mm. c'est pas le moment. loolu ñu wax les stratégies les les euh, les calculs donc stratégie nu may bëree nu may daane donc yooyu l'état du tiers xam nga li mu laaj dafa bari li mu laaj arène nationale boo ñaa bëri na fa mais tax de mësu ko bëri donc pour bëri ji il faut nga xam fi ngay bëree fan la naka la. l' environnement il faut nga xam ko l' environnement propice pour Boy Niang ou bien pour yooyu yëpp dafa bokk ci cadre entraînement yooyu nag c' est pas à moi de détailler ça ku ne du tàgguma sama bopp nag gaa ah, mais am na lu bari yoo xam te ne ñoom encadrement bi war nañ ko xool pour mën a fexe ñoom ñaa ne ku si nekk am résultat bu baax wax ma nag mën na nekk un match rare avec les bons arbitres c' est rare que nga am machine parce que avec le texte soit passivité dafa yomb ci bëri. te ñu bari ñu ngi koy kaas arbitre bi li muy li muy li muy avertir du yoon en réalité passivité dafa am dimbali sortie de la zone de lutte dafa am dafa dafa am solo mais da gis mbër bu ñu harcelé mu ñëw teg benn tànk yi bi tey ci biir tu le fais une fois deux fois on t'avertit tu dis pourquoi. ngir booru def na ko heureusement kon Balla Gaye passivité wala ñu jàppale nga féq sa loxo jàppal la nga féq sa loxo loolu passivité la jàppala bëgg la xëcc nga nga bañ jàppal la nga defaat la at ko neex arrêté na la eh, bëri nga bañ ko mu avertir mais le le du ko mën a comprendre parce que y a ce qu'on appelle les aspects offensifs ak li ñuy wax les aspects défensifs moo tax la de Guiers souvent mu am problème nit ñi mais c'est un lutteur très technique parce que dafa dafa alterner ñaar yi dafa alterner les deux mais par contre maintenant il faut voir ne maintenant selon les visions visibilité li ñaari coach yi di am ak l'ensemble des staff xool les qualités de Boy Niang xool les qualités def synthèse analyser mën a xam kat kii fii laa jaar te ko wala kii fii laa jaar kii mais am na lu ñu commun ci ñoom ñaar. am na lu ñu bokk am na lu ñu bokk ñoom ñaar. Hmm. waaw. am na lu ñu bokk de dañuy takk. dañoo bokk dañuy dañuy takk c'est-à-dire dañuy dañuy jàpp takk digg. lu ñu lu donc loolu ñu wax le centre de gravité di couple ñoom ñaar ñëpp lu ñuy seetee lu ñuy wax le centre de gravité di couple jàpp maintenant. kan lay ah, avantage si jàpp bi. avantage ah bi ma wax. <laughs> parce que sëñ bi dama la ko wax père beneen bi mooy Gris lool c'est-à-dire que ni kii bëre fii kii bëre fii gars yaakaaroon lu nekk boobu la woon gars yi naan Balla Gaye wérut affaire yooyu Gris Bordeaux xam nga ñoom mais après ñu kiiwaat Gris Bordeaux Balla Gaye combat boobu noonu. moi je dirais que la pression monte plus que sur Gris Bordeaux. parce que le titre non c'est normal le titre qu'il porte au niveau de Fass jusqu'à présent nit ñi gisaguñ ko la valeur de Fass l'antiquité de Fass le flambeau de Fass Gris Bordeaux da ko comme l'avait fait Mbaye Guèye comme l'avait fait les Faga comme l'avait fait Tafa Guèye da kan la fi daan Baye Mandione Tyson Tyson je ne suis pas mais il n'était pas à des mesures de la compétition parce que la compétition boo ci nga ci nekk proprement dite mais donc Gris c'est à lui maintenant de faire de tout pour rehausser le le le c'est comme le tokki que Balla a fait dans nos deux fois ji Eumeu Sène il est allé se refaire se repositionner se repréparer ñëw tegale deux victoires donc ça implique waaye ce que ça fait aussi du bàyyi Gris di ko mii misaat donc il fera tout pour lui remettre les deux zéro donc ça sera un, un combat très technique mais ça sera aussi physique ça sera aussi un combat mental waaw ñett ñaa yooyu moom mënuñu ñàkk si bëri parce que man l'aspect mystique dama ko du ma ji appesantir de trop parce que ça ne fait pas gagner ça partie une petite partie de de de la préparation c'est tout mais sinon ku mbër bu ko ci bëgg gëm loolu neel entraîneur beeg ñëpp demeen toog nga toog sa kër dinaa ne bu teel rek ba jur combat bi boo ñëw bu ñëw ba ma xëy di nga génne sànni non di nga naan ba si biir fees bu ñu waxee bu njëkk jëngal nga gal donc c'est pas le mystique qui fait qui di nga ko daan da ngay préparer entraîné ba doyal te ji de nga aar sa bopp c'est minime mais donc ñoom ñaar nekk na combat revanche boo xam te nii ça va relancer parce que Gaston c'est qu'il a fait et tu sais moom moom moo tax loolu mu yëgal moo tax muy ma daanaa defar ay combinaison même même Bantamba TV uh-huh. je c'est ça je l'ai fait da nga laaj Omar m yëpp defar naa ko ba def ay grands comptes petits yooyu yëpp j'ai je l'ai fait depuis depuis presque décembre comme ça. kon ñëw Gaston non c'est important non il, maîtrise la lutte il connaît xam na yoon bi xam na les démarches qu'il faut xam na l'approche qu'il faut pour def ay combat te alors il a il a réussi tey tax na Thialis dugg si Aziz malheureusement il est sorti mais man l'appel que je vais peut-être que ça sera du côté de de Ama Baldé Modou parce que ça fait une saison ils ont perdu parce que fin juillet bi dañoo bëri ils vont reprendre à l'année prochaine si toutefois li ñu ko laaj n'arrive pas à sortir de ce de cadre ça va être un, autre problème. jàpp si gë bokkaat ci ci relance bi parce que tey loolu bu duggoon dafa naa ne y a que la guerre qui va chemin ou bien mu dem ci suuf uti keneen pour yéegal ko donc les ils sont ils sont ils son sept ils sont huit ils sont sept ils sont sept six dugg nañu mu des ko moom moom. son oui oui c'est ça ah donc bu ñëwoon tey je crois que dina baax voilà maintenant bu fekkee nag ñëwul ñu war a mën a alerter pour l'avenir de ces trois lutteurs de ces trois lutteurs parce que ñoom ña Modou Lo Ama Baldé moo ñu leen tënk constamment sans lutte sans lutte alors que je crois que l'ensemble de ces staff war nañu mën def maintenant nag toog def ay sorties expliquer sensibiliser voir quelle voie et quel moyen qu'il faut utiliser pour que au moins ñoom ñett ñu fexe am la revanche Modou Lo Lac de Guiers parce que Ama Baldé Ama Baldé euh, Lac de Guiers c'est pas tellement évident que ñu ngi bëri donc au moins ça permet de relancer mais au moins ça permettra aussi am de trouver un adversaire pour Ama relancer waat encore la ren ça nous permettra en 2022 mu ñu gën a am yu gën a neex voilà. Euh, Eumeu Bombardier Bombardier ndax combat revanche parce que comme euh, un goût euh, inachevé moo dal Bombardier mhm. parce que euh, combat qui n'a pas duré euh, à moins de de de de de deux minutes je ne pensais pas que aujourd'hui euh, Eumeu Sène dina bàyyi une certaine négligence pour que Bombardier jël sa revanche mhm. mais Bombardier aussi. il est dans de bonnes mains parce que il se prépare continuellement avec MMA bi muy def malgré son âge il s'entraîne et que les qualités de mon athlète c'est l'entraînement la récupération et avoir une bonne hygiène de vie je crois Bombardier il l'a deux fois de suite il est roi des arènes et il veut en revenir mais malheureusement pour un an c'est fini et je crois que il veut sortir avec une bonne note euh, Eumeu Sène il bër li ko dese bariwul moom ak euh, moom ak comment s'appelle encore Gris ñoom ñaar solo ñu même génération lañu donc après après Bombardier ñoom ñaar ils ñoo ñoo préparé topp topp rang bi euh, donc ma seet aussi ak kaw bu mu jógee il doit se rectifier il doit quand même dire à ses supporters au niveau de Pikine que mes qualités j'ai fait une erreur parce que daanu na si parce que une mauvaise garde une mauvaise appréciation ñu am sur un coin sensible donc war na ko beneen permettre tey mu revenir encore am un résultat positif pour mën a dellu soit la revanche

Reug Reug c'est-à-dire que Reug Reug c'est euh, comme Yékini Yékini bu muy yëg il avait des difficultés pour am adversaire parce que il a fait l'équipe nationale donc euh, il a il ñu jaar ci kàddu gi pour mun a yëg pour mu bëri comme Boy Niang exemple il a eu à la guerre léegi amatul benn benn benn ténor bu ko mën a bañ. parce que déjà rencontré na la Ligue xam ne benn benn la am sur Eumeu Sène ak beneen benn défaite ci ci ci sur euh, des avertissements euh, c'est c'est réglementé aussi ça fait deux défaites mais boo cité euh, euh comment ça s'appelle euh, Boy am loolu c'est parce que mu yàlla Reug Reug depuis drapeau sur l'État à Mbour la commencé di harceler guy gi parce que chemin la te boo gisee mënul tëb tëb dem ci le sept qui guy gi moo nekk si si si socle bi donc fa la mën a jaar donc hormis guy gi fa la mën a dem Soit tu vas pas citer, si les gens citent Tapatine, la Léguère, ainsi de suite, jusqu'à là-haut. Mais il veut coûte que coûte avoir un palier pour monter. Si peut-être, comme l'avait fait à Mabalé, Dieu pas donc c'est ça. Il faut que montre l'encadrement de, de, de, de, de et de qualité. Parce que MMA, il commence à faire des résultats. Ils veulent propulser, avoir encore beaucoup d'acquis sur la lutte avec frappe. Donc c'est normal qu'ils qu attaquent ils font la pression sur Guy Guy gi il, parce que aussi Ngay Loum c'est quelqu'un Ngay Loum bëri na beaucoup de jeunes ne connaissent pas il fut un lutteur et puis Mor Fadam ñu ko yàlla sell parce que Ngay Loum aussi il doit relever un défi warul jël jël euh, euh, comment ça s'appelle Guy di ko sacrifier Reug c'est quelqu'un que je dis que l'ensemble des lutteurs qui sont là dans l'arène ñu yóbbu leen lutte avec simple da leen daan leen kër ñoom ñëpp il a la qualité il a la compétition def na lu CEDEAO def na lu bëri na defaan nañ les couleurs nationale mais ñoom ci kaw kan mu ci bëri équipe nationale du ci kenn du ci kenn ñoom ñëpp ku ci dem ku ci dem euh, CEDEPS Thiès da ñibbi si waat mais moom dem na boo def comme il nekk capitaine d'équipe comme mu yëg yëg ni yëg ni yaa ngi ci difficulté mais nag il suffit mu mu jàll yi bi rek. je crois que mu bañ yàkkamti mu def ndànk c'est pas uniquement euh, guy gi moo fi nekk comme cible am ne jaar peneen peut-être que d'ici un à deux mu escalier bi mu yëg ko ndànk-ndànk rek incha allah il va venir parce que les gens vont quitter moom ak Ama Baldé ñu nga si yoon bi boo Niang mi ngi si yoon bi Ndeye ils vont quitter Sa Thiès mi ngi si yoon bi Garga mi ngi si yoon bi. ah mais non ça c'est ça c'est tu m'as demandé grand combat. Ah, ah. et ce combat je crois que man à mon avis ah. euh, duma ci sax wax ju bari. combat bu neex lay doon parce que ce sont mes deux lutteurs. ça je le dis ça je le dis samay deux lutteurs. gaañ lañu samay doom lañu. man maa am problème. non c'est vrai ça je le dis ah ñoom ñaar ñoo xam nañu ko. heureusement que c'est je suis une personne qui ne mm-hmm. pas. du tout par rapport à ce que je fais. je suis honnête j'ai des qualités sport. du ñu am kenn kenn kenn kenn ku ma ji favoriser bàyyi ko ñu des. ça je le mais ku ma tasal tamit nga woo ma laaj ma ah. dinaa la wax wax ju rafet wax ju sport te yoo xam ne nga ko ci mën. mais combat bu neex mais doon vraiment combat bu neex lay doon. waaw Sadio Seye suñu mm-hmm. moo déggoo ñoom wax na avantage bi je peux pas dire parce que lépp àddina ba ah. nga ko jugé. da ko gis à la préparation. Ah. beaucoup de gens parlent beaucoup de chroniqueurs mais ñu ki tant que gisoo la préparation athlétique qu'il paie mënoo ko juger par rapport à ses performances man de loolu laa jàng tey mënoo préparer dara te di lekk daan na su ma jógee daan mënoo am fenn tant que gis nit ki mu liggéey mu préparer nga xool nga évaluer ko natt ko peese ko laata boo dire maintenant le favori ainsi de suite certes les gens disent favori c'est parce qu'ils supposent comme tey booy ñaata Tapha Tine mais c'est Tapha Tine qui est le favori est-ce que vous avez compris maintenant c'est en fonction de la préparation sur l'aspect même pas physique technique mais moral d'abord parce que ça joue boo ko boole mën ne l'environnement dafa bokk ci làmb l'environnement da nga préparer bu baax am qualité yu baax physiquement nga taxaw entraîné ba ci lekk ba doyul nga yëngu ci làmb ji mu réer la donc l'aspect l'aspect boobu dafa bëri ay aspect la bëri ay facettes yi nekk ci biir dafa jëlee il faut que nit ki nag am un bon encadrement pour yóbbu la si sur kii mais dama ñaan rek euh, combat yi yi fi am yëpp nag yëpp ñaan vraiment permettre na lamb ubbeeku lamb day ubbeeku amateur yi jëlaat encore l'envie dans le stade mais je suis je partie des personnes qui qui soutiennent l'arène nationale man suñu nation su ma doon le ministre benn mbër du bëri Ibou Mar. du bëri Ibou Mar mi ngi te mi ngi mel ne rek nga ne jaraaf bu subaa nga dem. nga dem Anta Mbaxar Thiès parce que foofu lay c'est japonais mais day bañ day bañ noo noo mënoo bàyyi stade Ami euh, Léopold Senghor di di dem jugé ay ay ay ay donc c'est comme donc il faut que ñu bàyyi le les les les handballeurs ak seen terrain de jëriñ. dina jëm à